Ah, oh, na ma fi indi mm. bon maa ngi kontaan ci intervention honorable mm. euh, mais maa ngi départ ci fii euh, Bouba Ndour wax ci li bu wax lu am solo la dafa ne affaire bi bon lan la wund qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela c'est très important dans la mesure ou su fekkente ni bii maire maire bu nekk ci dëkk mm-hmm. wala maire bu nekk ci quartier c'est c'est c'est en quelque sorte un magistrat euh, presque qui est investi de pouvoir juridictionnel mais loolu dafa nekk benn affaire boo xamante ne bii fee la féete làmb ji dañ koy tëgg ku nekk dem. Hmm. yëkkati sa sengoor. Hmm. yaa ngi dégg parce que nit ñi <coughs> ci yoon je crois booba nit ñi dañ leen war a bàyyi ak seen seen seen seen seen choix madame bu élection ñëwee ñu seet ki nga xamante ne kii moo leen gënal ñu teg ko. Hmm. fekkente ne bii par exemple euh, dañ ko nommé noonu booba li mu wax ci li mu daaneele rek parce que aussi tam wax ji dañ koy sof daal. koy sof kon xëy na peut-être je crois jël mairie bi teg ko ci doole ji muy nguur gi bu fekkente ne dañ koy nommé. bu boobaa kon jongante du am xëccoo du am heure bu leen neexee boo xëy na dañ demee noonu. Mm. donc li li bukki waxoon ni li ñëpp wax mooy dëgg tey ji daal je crois bien. Mm-hmm. su fekkoonte noonu dañuy sondé réew bi yëpp. xam naa li leen doon gënal mooy tey su maire parce que defe naan sax ba loolu maa koy doog xaw ma nag yéen mës ngeen ko dégg fenn ah Charles mës ngeen ko dégg fenn théorisé dañ koy am feneen quand même je veux feneen waaw non non man fii man lu ma intéressé mooy. Sénégal mooy Sénégal. jël exemple beneen. non mu laaj déggin <laughs> parce que fii dañuy wax naan ñu bare bu ñuy wax surtout politique mais xool leen États-Unis xool leen France xool leen Japon di wax mais cest moo tax ma laajte. mais léegi bu ñu yemee Sénégal waaw léegi bu ñu yemee Sénégal léegi ñoom am nañ pratique yu oui ma DER DER DER mën nga laaj. il est bon waaw d'accord. mais léegi man léegi su ñu yemee Sénégal il est bon ñu jël exemple. ci lu baax ci ñoom su ñu yemee Sénégal. Mhm. est-ce que ci histoire du Sénégal loolu la honorable député. Mhm. dépu euh, euh, débuté. Mhm. est-ce que loolu mës na am. donc bu waree am xëy na am na lu tax mu war am. est-ce que sénégalais yi dañ ko accepter. boo doon def tey jii sondage je crois. non ce n'est pas une affaire de sénégalais c'est une affaire mm. Mm. am loo xam ne non non. mais Dakar waa il est sénégalais maa ngi ñëw même tuuti. mooy koo xam nga ba pare même tuuti le le le waa. Charles le Dakar waa il est sénégalais. Charles le Dakar waa il est sénégalais. man doo la ma teg ci suuf de. daa déglu la bref le Dakar waa il est sénégalais le Dakarois il est sénégalais il est africain. donc man foofu laay waxee. Mm. donc léegi kon waa léegi en bon léegi daal dañu bëgg sempi Dakar ci affaire mairie daal ñoom ñu nomee leen léegi quoi waaye yeneen dëkk yi kon nu ñu leen def. Mm. non non non non. ah ñoom ñu voté. non seen ñoom ñu voté. waaw ah, très ah kon ñoom ñu voté. waa moo xam waaw kon lu tax kon ñeneen ñi voté Dakar ñoom di nomee man foofu laay waxee. voilà non dafa am benn dafa am benn affaire boo xamante ne ñu ngi koy kii depuis quelque temps dañ ko dañu dem ba théoriser ko am na ku ko théoriser wax ko si rajo yi ñëpp a dégg ko mu am ñoo xamante ni ñu ngi say liggéey si suuf lu tax loolu booba wax na ko lan moo ko wund mais dafa am loo xamante ne mënul ket ka ko teg ci agenda pré agenda nit agenda mandat mm-hmm. agenda régime booy def benn affaire da ngay def affaire pour la mu pérenne pour l'éternité mm-hmm. ñu toog saa yu nekk boo ñëwee pouvoir en fonction loo xamante ne moom nga do bëgg a dawal pour yow sa convenance ak sa confort politique nga ne nii laa koy defee dakaar kii wax na ko sànq Dakar a un statut spécial Dakar c'est 4 millions d'habitants loolu yëpp d'accord nañ ko mais loo xamante ne réussir loo ko dakaar mais parce que tout simplement xëy na joxoo Dakar gëddëm quand il y a eu des problèmes avec Khalifa Sall mais ñëpp gis nañ problème yi ak Khalifa Sall lan la fi indi gis nañ fi xuloo si place de l'indépendance Khalifa ne nii keneen ki ne nii finalement defuñu fi dara gis nañ fi yooyu ak yooyu ak yooyu pourquoi et Dakar dakaar Dakarois souffrir de ça mais je suis désolé balaa nga ne ma Saint-Louis balaa nga ne ma Casamance pour des raisons qui concernent Dakar. Mm. quand bien même elle serait la capitale du Sénégal mais c' est d' abord une affaire de Dakar waaw. il faut que nit ñi le découpage administratif le lu mu tudd le soo ko euh, mooy le découpage bu ñu def nii avec euh, décentralisation l' acte trois de la décentralisation. munoo def benn affaire et son contraire. Mm. parce que mm. tout simplement da nga bëgg a tailler sur mesure benn politique locale. ak à ta convenance taille pas. Ah, ok Charles et ça on peut pas l' accepter mais mais mais non mais kan kan moo convoqué déjà. idée bi kan moo convoqué tous ces maires la c'est c'est c'est le haut conseil mais moom laay wax ni xam nga xam nga xam nga ñu ñu bëri pertinance su existence au conseil bi sax dañ koy poser su fekkee ni c'est pour poser des actes yu mel nii c'est encore plus grave c'est-à-dire que dëggantaan au conseil bi ñu bëri man personnellement je pense que c'est c'est une structure boo xam ne il faut caser le parti socialiste quelque part te ñu téye ko c'est un truc boo xam ne ñoom ñoo ko téye donc aujourd'hui si le euh, conseil c'est pour commencer nii di poser ay actes yoo xam ne dafay reculer loo démocratie bien sûr parce que ce ce problème de Dakar là il ñu si dindi politique mais rek qui tient la capital tiens mais bien sûr voilà donc aujourd'hui ah, question boobu bu ñu ko tegee si kaw table il faut que ñu convoquer angle yooyu yëpp mais au conseil existence am il faut mu mu mu mu mu prouver que ni am na fi njëriñ mais di teg ay actes yoo xam ne dafay avancer loo dëkk mais doo indi doo ñu indi ci benn ci benn ci benn jeu boo xam ne lay wóor ni c'est pas en tout cas c'est pas pour le pour pour bénéfice u Sénégalais yi quoi. en fait man man li ma ci bëggoon yokk rek mooy euh, le fait que mu nekk au conseil ak bu nekkoon tam benn station lañ jaar et tout il est état lu muy njëkk woon rek mooy que c'est le régime qui le veut parce que moo dem di consulter ay maires yi. hein, ay maires des orientations aussi importantes dans la vie capitale que nekkul mu jógee ci pouvoir central bi ça c'est une évidence ça veut dire que c'est en train de voir dans quelle parce que parce tu as que des échéances conseil, en 2022 ki koy ak njiitu réew mi ñoo bokk ba même mouvance donc mun na bañ a jaar foofu jaar ci benn station. et puis maire yu ñu yu ñu convoqué yëpp boo xoolee list bi ñoom ñëpp benn bokk yaakaar sauf madame Wardini. non mais ci a am. c' est pas c' est pas man daal li état wax. li li la ñuy wax. contre une seule voix. waaw ah, léegi madame Wardini lu mu ci wax moom lu mu ci wax ak moom. madame Wardini xam ñun ñëpp xam nañ li ma ci wax loolu la ci wax. parce que sañu ko elle est de Dakar elle est d' ici même bu dee Latmingué la juddoo fii mooy maire sañul jël suñu voix ñun ñun waa Dakar di ko hypothéquer pour leneen du ko def xalaatu ko ndax voix moo ko fi indi Khalifa Sall la ñu votel ñu révoqué ko ko ñu votel ko ci conseil municipal bi mu ñëw bu du woon vote kon du ñëw mu naam xam nga xam nga xam nga moom loolu du ko du ko bannir mais nañu xool le motif maanaam continuer di rey ay nit hmm. pour ay calcul politicien moi je crois que il faut que ñun ñu commencé nag xoolaat suñu bopp parce que lii yëpp dafay jeex léegi élection amaat nga jeex après nga romb xale yi di la ciipatu. ak yooyu loolu jaru ko. der amul njëriñ. der on ne dit pas. bu toogoon ne Dakar waay Liberté 6. Liberté 6 rond-point Liberté 6 bi ak tout ce qui se passe foofu. ñu xeex loolu. bu ne ñu woon Petersen nga dem Petersen nga dem Petersen côté boobu yëpp nga dem feneen ak feneen foo xamante ne Dakar dafa embouché ba nga xamante ne kenn xamatul lu muy niroo loolu mooy xeex ga. nga xamante ne képp kuy ñëw Dakar képp ku dëkk Dakar boo leen dajee Dakar dafa am loo xamante ne muy sa liggéey muy sa commerce muy sa lu ne wala tout simplement nga nekk benn résident dem ak ñëw day yomb si yow nga nekk benn ville boo xamante ne ñëpp fiy ñëw c'est ça le véritable enjeu donc qu'on attend de nos magistrats ak de nos gouvernants bu fekkente ne léegi nag c'est des découpages politiques Sénégal commune communes c'est risible C'est risible. Tu de données sur 557 communes pour avoir une cartographie, euh, comment dire, euh, demee noonu. Si vous pouvez pas imaginer, cest à politique tout simplement clientéliste ou à des fins totalement personnelles appliqué ko nii euh, se retrouver avec une infinité de de de, de gens yoo xamante ne da ngay fay et tu tues toi-même le processus de développement de ton pays. Pierre ñu dem ci thème bi. Charles nga jël sama bi thème euh, euh, ñu dugg ci plat de résistance bi bu bu doon ndab la. kon léegi entrée lañu def ko waaw bu voilà bu doon bu doon dañuy mos. dañ hmm. naan entrée bi jàll na léegi ñu dem ci plat de résistance bi. bismillah alors euh, di massawu ki ñu mujj nemmeeku donte. Rosso euh, njur njurbel extension la ñuy wax Rosso Mauritanie la xewee. Hmm. mais man dama jàpp ni euh, xale bañ fa rey ñeenti at siif yegg ci moom. Euh, Rosso muy bu Mauritanie bu Sénégal benn la. xeet mhm. xeeti benn la. donc bu fa xewee mhm. forcément daf ñuy laal. même bu amee Sri Lanka sax. exactement euh, donc. même si ça euh, s'est au Sri Lanka c'est